du Sahel muy c'est vrai société bu société de anonyme ça veut dire société de droit privé la euh, li nga xam ni actionnaire unique bi mooy caisse de dépôt et de consignation li nga li li waral xam modèle caisse de dépôt modèle CDC modèle bu yàggul le bir Sénégal euh, CDC a légui fukki attaque ak ñaar la am de demee France CDC a na euh, ñetti siècle c'est-à-dire 300 ans Si euh, boo ñi xam modèle CDC moi li nga xam ne ni France CDC moo développé c'est-à-dire que investisseur institutionnel acteur économique de premier rang Soit demee réew mu Maroc ni Maroc CDC a 70 ans. Le euh, CDC ak ay filialam nous avons un rôle pour appeler l'État. Euh, ci li nga xamni ni moy ambition ak ay objectif am ak limi muy ak ay projet de développement euh ndax il faut ñu comprendre lan moy rôle CDC ak xaalis bi nek CDC CDC caisse de dépôt la ak consignation boko ko du xaalisu état moo fa nekk sa xaalis moo fa nekk sama xaalis moo fi nekk ñaari sénégalais yu am problème dem tribunal ni am caution fuñ ko déposer wala consignation xaalis yoy lañuy dajalé donc xaalis yo xamni ne dañ ko fa dénkané yii mun na fa def weer génnaat yii mun na fa def ñetti weer génnaat yii mun na fa def at génnaat ñii mun na fa yàgg donc xaalis boobu léeg-léeg mu am xaalis yu nga xam ne nii dañ fay yàgg comme boo demee fay Orange wala Senelec caution yooyu ngay joxe wala SDE compteur xaalis boobu il faut que ñu xam ni ñu ngi koy dénk CDC jour bu sa contrat jeexee ngay jël sa xaalis CDC ngay ñëw jël xaalis donc am na xaalis yoo xam ne dañ fi xaw a yàgg donc dañu ne loolu nañ koy jël di ko investir si ay projet ak programme mu am lu muy jur nga xam ne nii remboursement yi bu ñuy bu ñuy remboursé xaalis bi du tëdd di nelaw loolu mooy rôle CDC. CDC mooy actionnaire unique cest dire moo joxe xaalis bi defar filiale bi mais filiale bi société privée la cest dire que du xaalisu état moo koy dundal du subvention du budget li muy dundee mooy li muy dem nekk ci donc société la comme société yi ngay gis fii yëpp ñu nekk ci. ci ci ci marché bi donc moo au delà li muy valoriser waa actif immobilier ou CDC dafay développer nag ay projets yu bees programme yu bees yoo xam ne société bi moo ko moom te loolu mooy dundal ëllëg société bi alors ci loolu nag nga xam ne comme mission bi mission promotion immobilière la ñun biñ ñu fal biñ ñu wóoloo dénk ñu mbir mi li ñu njëkk def moy ñu def diagnostic analyser marché bi

créer modèle bi muy lu bees tak lo xam ni modèle la bu amul ci biir réew mi parce que li tabax amul ci biir réew mi modèle bi même niñ koy financer ni mi liggéeyee amul ci biir réew mi loolu modèle bi mu ngi exister Maroc mu ngi exister France mu ngi exister Canada donc benchmark international bobu dañ ko def tamit boole ko ak li nga xam ni xol nañ ko mo xew ci biir réew mi ak li am pour ñu tabax modèle lu modèle lu ni niroowul dara ak li SICAP di def niroowul dara ak li SNHLM di def te bariwul modèle bi def bariwul société immobilière yu nekk ci peut-être que waa li différence bi mooy ñun dañoo xalaat dañu nekk sur li ñuy euh, société ci li le luy ligue immobilier positionnement bi dañuy nekk ci quartier yëpp xam nga boo demee SICAP par exemple wala HLM dañuy nekk souvent promoteur aménageur ak promoteur kese lañuy ñuy nekk ak commercial di jaay ci loolu la ñuy nekk société yu bari dañuy nekk ci promotion construction aménagement ak juste les services ñun nag dañu indi innovation suñu liggéey dañ ko tabax ci ñeenti pôle euh, innovation bi njëkk mooy lu amagul Sénégal mooy société immobilière ci boppam nous xam ni dafa structurer. capital euh, investissement moyen foncière moy dañuy tek pôle métier dem lever mais au-delà de outil lever ci investisseurs étrangers pas ci état pas ci banque forcément dinañ commencer dinañ dem ci banque mais ci ay investisseurs étrangers yo investir immobilier intéressé de nous structurer pôle bobo. mais sénégalais yi nga xam ne nii ay jeunes lañ ay jigéen lañ bitim réew lañ nekk bëgg nañ am bien euh, ci ci at ci ñaari at ci ñetti at donc structurer offre ingénierie financière bo xamni ni da fay am plan d'épargne ci biir société bi bo xamni ni au bout de deux ans so épargné tu es prioritaire ci terrain yi ñuy aménager diko jaay tu es prioritaire ci kër yi ñu défar diko jaay ak yombalal la condition d'accès yi ak ci li nga koy fay ci juróom-ñaari at. dañu am objectif bu important état bi am objectif ci cent mille logements yi loolu ñu dinañ ci jouer rôle bu am solo pour jàppale état bi euh, dinañ ci def rôle bu am solo bu am solo pour jàppale état bi def suñu contribution une fois que. Euh, conditions yëpp ñu tek ko en place dinañ ci liggéey am nañ ci ñu ci ciy liggéey suñu modèle dañ ko def en tout cas suñu rôle moy jappalé état bi ci objectif cent mille logements yoy ñu ci ciy liggéey ak technicien ministère yi et japp nañ ni ministre bi dinañu tek ci position ñi nga xamni ni euh comme promoteur public yi euh disposer d'assiette foncière en tout cas dañ ci bëgg nekk les premiers ci ci ci ci ci ci loolu waaw képp ko xamni ne ci juróomi at yi jàppale président moo la tax a de façon sincère amo benen engagement amo benen projet lu moy mooy réussite président ci juróomi at yi doo la ngay concentrer sa effort ci li ci ci le temps du président muy le temps de l'action pour liggéey pour que président am résultat man ci loolu la nek te ci loolu lay wo képp ko xamni ne

bo demee ba nga xam ni nii mënuloo ko changer té mengowul ak sa gëm-gëm ak li nga gis ak sa gis-gis mais nga bàyyi nga démissioner Sénégal moy si réew moo xam ne l'un des rares pays au monde où où au kilomètre carré ñii rêvé nek président de la république so bi plus de 300 personnes ku ñu nek yaa ngi tëdd naan suma ma ma nek président de la république c'est-à-dire que duñu wax question de développement duñu wax naka la ndaw ñi solution débat bi élection yi jàlle ak léegi mën nañ ñëw ñu poser débat sur coût de l'électricité c'est un débat mën nañ ñëw ñu ne débat ci ci ci xëyu ndaw ñi mën nañ ne débat sur sur man déggaguma opposition wala koo xam ne ni pro porté na projet alternatif ne kaa waxtaan ci naka la ñuy quelle est la stratégie seen projet des cent mille logements je pense que ñu débat non il faut que ñu débat ci projet si am un programme bu ñuy tëral man dama bëgg le débat mu porter et eh, li ngeen di def zéro déchet setal dëkk bi baaxul approche bi ngeen jël baaxul ñu né zéro bidonville non approche bi état bi jël ak gouvernement bi programme bi ñu tek baaxul pour que mu arriver ni la wara arriver ñu non mon programme euh, de gestion budgétaire tel tel tel baaxul je pense que c'est ça les vraies questions mais mënuñ ñëw Sénégal dafa toll fi mu toll enjeu de développement lañ toll ndaw ñi ñuy déglu sax dañu bëgg suñu dégloo de discours politique mu nekk loo xam ne nii da leen di indil njëriñ mais mënuñu ñu ñu élection immédiatement après le débat c'est les règles électorales cycle électoral code électoral mandat présidentiel mais avant ngay yegg wax élection présidentielle 2024 ci diggante bi ñaari élection ngi fi pourquoi duñu wax élection locale yi jëm di ñëw ci kanam pourquoi duñu wax élection législative yi ñëw ci kanam 2022 bala élection locale élection législative pour wax élection 2024 donc c'est pas ça qui structure loolu moo on refuse ce débat là parce que ce débat là soo ko posé da ngay enjamber élection locale 2021 enjamber élection législative 2022 pour wax élection 2024 mais bala nga yegg di wax affaire 2024 mais 2021 mille ngi fi nañ wax ci lolu 2022 ngi fi marche contre le coût de la vie gis nga les problèmes duñ ko régler ci place publique les problèmes duñ ko régler ci tali bi courant bi man de d'accord na parce que sénégalais laa damay fayal sama bop sama courant man d'accord na ni sama facture ya deux mois sama facture weer bi mo gëna cher man d'accord nako mais su fekké ni mais c'est pas une condition mën nañ ko dénoncer mën nañ dem wax ak le ministre de l'énergie wax ak euh, le ministre des finances wax ak le président de la république mais ñu ngi koy dégg ci at bi gaay yi li fi dégg ci seeni slogan li ma fi dégg ci leen slogan mais mat na fuk ça fait tous les deux mois ñu am benn slogan ça veut dire simplement ils n'ont pas de cause conjoncturelle de façon opportuniste l'union ñëw ñu et ils n'arrivent pas à mobiliser le peuple mobiliser les citoyens si cause ça veut dire que au bout de deux mois trois mois dañuy essouffler il faut nous créer waat lu pour pour parce que entre ar les mêmes qui créer ar lu ñu les mêmes qui sont ar ñi nekkoon ar li ñu bokk ak ñoo lang ñoo nekk France frappe dégage ñoo nekk jotna na ñoo nekk Y en a ñoo nekk donc tur yi ñooy changé donc loolu et c'est les mêmes acteurs c'est les mêmes c'est un groupe de 20 personnes moi je n'ai rien contre eux je, n'ai rien contre le combat citoyen parce que japp naa ni démocratie ku nekk da ngay exprimer li nga gis man li ma gëm ngi ci gëm ñu ngi ci mais dafa dafa jàpp ni rek action publique action collective action commune dafa laaj vision dafa laaj cap dafa laaj nga xam lu tax ngay xeex di gërëm Sénégalais yi euh, ci parce que dañu nekk ci réewu jàmm réew bu dal euh, di ñaan yàlla rek yàlla gën a tappe xol yi gën a may Sénégal euh, naat yow di la remercier aussi pour occasion bi nga ñu may pour ñu def ñu def waxtaan bi di di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan mucc ci biir réew bi euh, Sénégal euh, Sénégal jëm kanam